Yatal Vision la chaîne de l'actualité dal leen i jàmm mbokki entendre yi nga xam ne yéen a ñuy suivre ci xibaar ginnaaw bi ñu leen lu ñeel nag mbirum Ousmane Sonko woolu gi nga xam ne woolu woon nañ ko foofale ca tribunal bu Dakar ni ki démb loolee nag ki nga xamante ne bii moo di Pape Alé génn na ca def ca ab waxtaan ak lenn ci nit ñi moom nag mii di Pape Alé mi nga xam ne nag xoqatal jaay doole dëgg la wane ci li nga xamante ne bii mooy woolu Ousmane Sonko ga ni noonu nag ba dem bay toj li nga xamante ne bii mooy verre yi nga xamante ne moom ca oto ba waaye it yàq tey caxat caxatee li nga xamante ne bii mooy oto Ousmane Sonko waaye nag lenn ci opposition bi ñoom kat yéene woon lenn lu dul Ousmane Sonko ñu tëj ko ràpp ci biir kaso bi waaye loolee du massa am ndaxte xeex bi day continuer te dun bàyyi dara mu sedd loolee ka kay yëkkati ni pa ni kay kat di Pape Alé Niang di journaliste bi nga xamante ne bii jàpp nañ ko ay yoon dugal ca kaso ba waaye teewut benn yoon làmmiñam di dakk ci li nga xamante ne bii moom lay gis ci biir ko wax Ousmane sonk ginnaaw wóolu gi nga xamante ni bii nag wóolu nañ ko ba caxat caxatee ko lu bëri nag métti ci askan bi ñu bëree bari di ko ñaawlu ni nga xamante ni bii defee nañ ko ko ba fi mu toll nii nag ñu di ko saytu ak di ko bàyyi xel ci mbooleem kër gi nga xamante ni bii fi la nekk la ko wër mbooleem kër ga loolee nag di mbir moo xamante ni bii métti na ñu bëree bëri ci biir réew mi ñu di ko naqarlu ngir li nga xamante ne bii fitna la teg nañ ko ki nga xamante ne moo di Ousmane sonk borom parti bi nga xamante ne bii moo di Pastef